asalaamaaleykum Mbacke sab géewe lay nuyoo kuréel aw nag Babacar moo di aw turam mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis seen émission xam sa gént ci seen site bu mag bii di poro pro 28 pro nag bu ngeen demee YouTube rek ngeen abonné incha allah di ngeen ko am à bientôt balaa yàgg léegi di ngeen gis émission bi tàmbali di ngeen ko mën a am ci commentaire yi incha allah ci commencement bi. di ko am en direct itam ngeen woote jokkoo ak ñun laaj ñu seen gént ñu firi leen ko ci bu gaaw lépp lu leen ci lënt bu dee ay sarax ak lépp lu ci war ñu wax leen ko incha allah ngeen def ko. yéen ñi nga xam ne da ngeen am jaaxle ci wàllu gént xam nga gént day ñëw ci nit ki waxtu wu nekk te da di gént du ngeen xam lu mu doon bu fekkee sarax war na ci wala li ci war yëpp na ngeen kokkal ci seen site bii di 28 pro. bu ngeen émission bi rek lépp lu leen réer ci wàllu gént ak lu ngeen ci bëgg a xam di ngeen ko gis ci eh, vidéo yi wala bu ngeen ko laajee ñu tontu leen ci en direct incha allah